ويجب على المكلف حفظ لسانه من الفحشاء والكلام القبيح نانا ورنا تي مان ميدي واخ اك يوم مي ديغلو ني ميتو واتندو كو سوني لامين من الفحشاء والكلام القبيح مانام تي واخ دو نياو اك واخ دو ياك ماي لاج مبوكي نداخ نيت كي گيمن گي موي ليكي گيمن گي گاي ليكي دي تي ييك لو نيه است كو بو ديمي تي دوش بي لي گاي گيني سودون جار تي گيمن گوگو دينا رافيت نداخ دينا جيك xam naa tontu nga ma ne déedéet ah kay du jekk du rafet may laaj ba tey ndax gémmiñ gii kon nga ne da nga ciy jàng alquran yow jullit nga gémmiñ gi nga xamante ni nee nga da nga ciy tagg Seydina Muhammad gémmiñ nga xam ne nee nga da nga ciy def ay azkar tudd yàlla gémmiñ gi nga xamante ni nee nga da ciy def ay salaatu ala nabi maa ngi laaj ndax gémmiñ googu war na jëw maa ngi laaj ndax gémmiñ googu war na xas gor xas soo xam ne saa bu tëddee mu def ko góomu xol di ko xalaat maa ngi laaj ndax gémmiñ googu war na saaga mbokk yi saaga yu ñaaw yi ndax gémmiñ googu war na ko def maa ngi laaj ndax gémmiñ googu war na tàqale ay diggante maa ngi laaj ndax gémmiñ googu war na wax loo xamante ni tey tàqale ay bokk waaye maa ngi laaj ndax làmmiñ boobu gémmiñ googu war na wax loo xamante ni ku ko dégg rek tey ku baax sa loxo dem ci sa gémmiñ Sidna Muhammad nee na nit bu demee bay wax na xoolaat bu baax mesurer li muy wax bala mu koy wax nako xol xool ko set ko seetantal ko loolu la bi djel traduire ko ni avant de parler il faut tourner la langue sept fois sept fois barina, na ñaar yoon bu fekke bal ngay wax xalaat sept fois do mës wax lu ñaaw way doo mës wax lu yàq sidna mohammed ne kon nit ki bala muy wax na tok xalatat bu deme ba limi wax mo leer ko ne day yàq nee na nga tëj sa gemme bu deme ba limi wax mu leer ko ne lu ñaaw la nee na na gemme gémmiñam lolou kat moo gën ci moom kon nanu bàyyi xel ci sunuy làmmeñ saaga yi ñaaw na bokk yi te jullit moomul saaga xaste yi bari na bokk yi te jullit moomul xaste jëw bi bari na bokk yi te jullit warte jëw bokk yi fen yi bari na wax lu amul te jullit warta fen si naa Muhammad moo ko wax mbokk yi tas diggante yi ndax làmmeñ lu jóge ci làmmeñ bari na te jullit warul yàq diggante mbokk yi dëgg-dëgg wax loo xamante ni day yàq ak bokk jullit waru koo def nee naa la law kaanal kalaamu fiddatun la kaana sukutu zahabun kon nit ki bala muy wax war na xoolaat bu baax li muy wax lu mu doon ndax su fekkoon ne wax or la nee na noppi day ñëw doon jamaa tegu ci kawam ku ne xam na ne jamaa moo ëpp doole or moo ko gën a cher kon noppi li tubaab yi wax sax le silence est une arme kon nañu wàññi kaddu yu ñaaw yi nan wàññi saaga yi nan wàññi jëw yi nan wàññi xaste bi nan wàññi yàq diggante bi suñu war fay mu seydina muhammad sallallahu alayhi wa yàlla nu yàlla nital yoon te musal na ci noonu ba beneen yoon nu wax leneen lu am njëriñ insha allahu ay yoon de yoon mooy sama